wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat mbokk yi ba léegi rek ñu ngi ànd ak sëñ Cheikh Bara Ndiaye sëñ Cheikh Bara ginnaaw bu ñu la ziaree ndokkeel la en tant que doomu dëkk bi en tant que doomu kilifa en tant que citoyen taxawaayu Touba ca kanam ci tey domaine bi ñu nekk muy wàllu environnement jëm ci wàllu garab ban jàngat nga ci am. waaw taxawaayu Touba ca kanam maanaam bu ma ko doon wax du ma tàmbalee ci garab yi waaye damay wax ne rek maanaam mooy benn mouvement citoyen boo xamante ne man damaa gëm ne li Serigne Touba rawee nit ñi loolu da ciy feeñ ndax Sénégal rëy na euh, xeetu ONC bu ne lu ne am na fi waaye euh, association citoyenneté boo xam ne loxo état nekku ci benn loxo étranger nekku ci ñuy mën a defar tali di def assainissement di tabax euh, poste de santé côté boo jël dangay wax ne lii bu fekkoon loolu rek ci lañ spécialisé wu da ngay xam ne euh, vraiment loolu euh, da ngay naan loolu loxol sëñ Tuubaa koy def tey jii bu fekkente ne président de la république ñëw na jox ñu journée reboisement cela veut dire que mooy dañoo am Touba ca kanam moo tax ñu am sensu tey mën a mën a am journée bii parce que bu fekkoonte ne mouvement bu tudd Touba ca kanam nekku fi euh, di def li muy def ci wàllu ay preuve di ko wane ba président bu bëggee dugg ci dëkk bi am buntu bu mu jaaree ak euh, li waral ndaje mi tamit parce que dañoo def ay résultats parce que dañoo sampoon ay garab diggante Mbàkke ak Touba. biñ ko sampee jàpp naa ne état sax bu bu defoon ay garab di ko si superviser boppam du ci am 98 pour cent ci résultat garab yi ñu sampoon diggante Mbàkke ak Touba 98 pour cent lañ ci am comme résultat loolu bi ko président Ousmane ko gisee loolu moo tax mu ñeme Touba ca kanam ba ñëw. maanaam dugal loxoom ci li ñuy liggéeyal sëñ tubaa tey mu jaar ci wàllu garab nii kon journée bi lu mu rëy rëy lu mu neex neex rek dafay wane lenn mooy jëf jël gi yoonu yoonu murit taxawoo ak ñaq tedd maanaam tubaa ca kanam bis bañ koy samp ak bañ koy taxawal bu fekkoon ne maanaam lii rek moo nekkoon suñu objectif maanaam tey atteindre nañ objectif bi te itam dafa nekk mouvement boo xamante ne bëgg naa doomi Touba yi xam ko mooy résultat bi Touba am muy ñi wax ne Touba tey mooy dëkk bi ëpp ay mbooloo ci Sénégal ñi wax ne Serigne Touba mooy Serigne bu mag bi ci Sénégal Touba ca kanam mën nañ ko wax ne tey moom mooy mouvement bu mag ci Sénégal boo xam ne wàll boo laal tam soxal doomu aadama social rek liñ ciy dugal ci xaalis bëri na loo ñooy tudd lu rëy rëy ci réew mi te àggul foofu te man xam naa ci dara beneen côté boo mën a laal noonu ba tey jii tey jii ñu gis na Touba manqué na ay garab loolu dëgg la parce que li mu tollool ci garab ak garab yi fi war a nekk ci ay meññeent amu fi ñu dug xaaruñ état ñu dugal seen loxo ba état daw tey di leen dab si nii loolu vraiment dañ koy santaat sëñ Touba waaye di ko sant sëñ Abibu mbake ak ñoom sëñ Abdou Fatah ak ak ñoom sëñ Babacar Lo ak mboolem membre Touba ca kanam yëpp wajalilahi maskani Touba